الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين بي ci ndigal ak kàddu ak Cheikh Sidil Muxtaar mi fi tooge jataayu Cheikhul Xadim yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér moo ma fi yónni ak mboolem njabootam gépp tàmbalee ko ci sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy ab taawam ak sëriñ Cheikh Baara Abdoulahat ak mboolem njaboot gane ci kër gi yépp ngir xam ne bis bi bu ko mënaloon boppam du fi yónni kenn moo fi teewu ndax bisub Cheikh Mouhamadul Fadil képp kuy ab jullit walla képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa rek sa bisa rawatina moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa kon mi ngi lay yóbbante nuyoo ak cant ak ngërëm di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxol sarak yi di seex Mouhamadou Bachir ak Cheikh Abdoul Fattah Mbacké mi nga xam ne moom nga jiitaloon ci liggéey bi jël sa kàddu jox ko tam di ko rafetal na mu gën a rafete kon sëriñ baa ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax xam sa digg ak moom diggante cheikh Mouhamadou Fadil ak diggante cheikh Mouhamadou Baara boole ga leen sëriñ waa boole woon moo sar ba agsi ci seen diggante yéen ñaar ak cofeel bu rëy lal ko ci sa digg ak moom mu xam itam pëstéef bi ngay doxee sa digg ak moom te loolu du kiimaan ci biir kër cheikh Mouhamadou Fadil ndax Cheikh Mahamadou Fadil li gën a ràññiku ci moom mooy ak taalibe ak bëgg Serigne Touba ndax sëriñ Touba da leen woo ca Jolof woo Cheikh Mahamadou Moustapha Cheikh Mahamadou Fadil Serigne Massamba ak sëriñ Modou Rokhaya Bousso xamal leen ne leen lii fi nekk de dara ma yiwu ko lu may ak taalibe du bàyyi kenn du ma magi kenn duma ma nijaay kenn kon li fi jariñe mooy ak taalibe kon bu ci kenn doon mucc njabarug sëñ Tuubaa mucc ji kon Cheikh Mouhamadou Fadil loolu mooy li gën a ràññiku ci mbiram mu daa def baytam yu tedd yow yee bientu bu nu watiya bil iraada lakum li kay uxda bi xerqi aada min baadi mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xeyri manni faltaqbaluha yaama yaazu karama la ziltumu baynal baraya alama muy bayit yu siiw yoo xam ne ñëpp ko xam waaye lu mat di fàttali la ndax ba ko sëriñ bi waxee rek la daal di jaayante ne ko jur yi ma jur de jaay naa ko jënde ko taalibe te ginnaaw bu moo ko jaayee njëgga njëgga ga moo ko jox defaat naa ko addi loolu kenn mësu koo dégg daana wax ne lakum li koy uxda bi xarqi aada ji moo ma tooñ moo tax lu ma dugg rek xar baax feeñ ca Cheikh Fadil mbiram dafa yéeme ba ëpp ndax Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moustapha daa wax ne saa soo bëggee xam fi la nit ñi teg seetal fa nga teg Serigne Touba ci soxol kon Serigne Fallou fi mu teg Serigne Touba àdduna sépp xam nañ ko màggalu Kazu Rajab gi itam lenn la rek ci li ko Serigne Touba fayee ci bisam bu tedd bi mu ko wootee ci dëkk bi moo tax màggal gi agsi fii mu agsi tey nga xam ne am xel sax mënu koo xalaat kon Cheikh Mamadou Fadine léppam ay xar baax la lépp loo gis ci yoonu murid la génn kilifa waxoon ne bariwaa na jëneer boo seen te fekk ak génn na mag ci biir waaye foo seen nàkk rek ci biir yoon wi kàddoom dugg na fa walla ay waxam dugg fa maa ngi ciy wax ak genn kilifa barki dem ma ne ko ba ci màggalu Daaru Muxti gis nga ko lu mu tuggat lu mu tàbbal kàddoom bu ko doon kafe sax suñu borom def ko mu bëgg Serigne lool ba àgg boo xam ne kenn mënu koo natt shafku dumuhi li hubbil wax ne sotti samay ronqe ngir bëgg Serigne Touba farata laa ko def suñ borom defoon ci moom itam xar baax ju joo xam ne jaayante gaak Serigne Touba moo ko ko may ndax da daan bind sëriñ bi ay lettre yu baree bari di ko laaj ndigal ba mu ju sëriñ bi bi mu ko tontu jaar la ko ci soxna bu Bousso ne ko boo demee ne ko daanama laaj ndigal waaye ndigal li ma daan laaj tey mooy jumaa ji Cheikh Mahamadou Fadil daana wax ne suñ borom nag defal na ma tawfeex ba xeer wa njëkk a jumaa ji maa ko teg xeeru mujj wa maa ko tegal kon moom suñ Tuubaa defal na ko ay xar baax yu baree bari ci yoon wi kon ñi ngi ñaan ci barkeem bis bii wóor na ma ne yitte ju fooy àndaale suñu boom dana ko saafara ndax dara jaamu toll foofu ndax jëmm la joo xam ne ku ko mas a gis ak sa aaju faju muy ci saaxir ak ci batin ku ma sànn agsi di ko nax ci Serigne Touba mu wóor ko ne danga koy naxit dana ko doon ngir Serigne nekkoon jëmm suñ borom fekk Serigne Touba bu ma juumut léegi ak njabootam doon ëpp téeméeri junni kon kooku dafa jël léppam jox ko yàlla jël léppam jox ko Serigne Touba ku mën a tabaxit jumaa ju toll ni jumaay Touba ji ba noppi dëkk ci néegum ñax ak baraagub dénk boo xam ne Cheikh Modou Faare bi mu fi bàyyi ko benn paketu almet mën naa taal mboolem alal ju mu fi bàyyi kon tey boo duggee ci biir këru njabootam gi nga xam ne doon na liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye Sëriñ Tuubaa fay na ko bi mu fi bëgg bàyyi ko wane Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yebal ko ne ko mboolem fu Sëriñ tubaa taaloon nanga nga fa dem xambaat taal boobu am na lenn ci mag ñi xamutoon da leen jaaxaloon lool ñu ne ko dana dinañu jaax ndax sa njaboot gi ñu jàpp ne fii nga toll da nga leen war a wane mu leen déedéet liggéeyu jàmbur cere jàmbur nag du ma ko woon sama doom ba ëllëg jëm ci yooyu daa leen bàyyi kon na bàyyi ba sëkk ndax bi mu fi bàyyi ko ne ci mujjoon nga xam ne xamuñu lu bari jëlee naaj ñi nga xam ne taxawoo dañ kër ci biir ci kanam waaye ñi bàyyi woon ginnaawam sax te gisuma lenn leen njaboot suñu kon loolu bokk ci xaar baax ñi ko jëkk a wóor ci itam di Cheikh Mahamadou Moustapha Fadil li mu def ci biir kër gi ñëpp xam nañ ko ak tawfeex ji suñu borom defoon ci moom Cheikh Mahamadou Lamine Bara moo itam tawfeex ji suñu doom ñëpp xam nañ ko sëkk ñi ko wóor suñu ñu ñaanal yooyu neewoon na ca tam wóor ñu ne ca la nekk ci liggéey lu ay juróom te na ko fi suñu bàyyi mu yàgg ànd ak rakkam yu tedd yi ba liggéeyu suñu bi liggéeyu ko ko yóbbu yóbbu fa di jeexa tuuti rek ci ndis moom xam naa alaaj na ci wax alaaj li ma jeex rek mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da daa am kàddu yu am solo wax dafa daa wax ne ku jox jaasi ku xepp ku njox baat day war kon jàpp na ne sëriñ bu baax yoonu murid moom amul porte-parole dama koy faral di wax kii si wax lu mooy am solo ndax sëñ bi ku ko laa wax loo ci ndax yoon du doxe noonu te loolu itam yoon népp lu mu daawu doxeet jërte jéem a indiwaat ku sëñ bi wax loo ci bis rek yaa wax waaye fu la wax loo itam wuroo caa neex nit wala lu neex kenn mënu ko jot ndax musuma dégg kenn koo ne waruma ko wax ma tontu ca wala mu naqari ma ci sama biir xol lu weesu santaat ci yàlla ak sant Sëriñ Tuubaa ak jéggal kooku lay def ak xam ne fi ma nekk itam faw dangay yor yi fi jaamur yooyu mbooloo faw nit ñi di wax ci yow kon duma ci tontu te xalaatu Serigne Saliou Mbacké da cee joxoon boo xam ne moom lay dund daa waxoon ne aw tos loo wax ko li jër tontu mooy saa suñu waxee na naa ngi xew nga tontu ci ëllëg danañ bindaat leneen mooy tontuwaate ñu bindaat leen nee na bu fekkee caa noppi nag bu déggee ñu waxaat la ci nga tontu loolu boobaa la nga liñ njëkkoon wax tontu yaa sax lool kon lépp da nga koy bi àdduna rek dana ko lépp lu ñuy tontu gën naa koy waxit waaye lu jëm ci mbirum suñu duwaa lépp lu ñuy wax dama ñaataale yàlla te xam ne suñu tuwaa dañoo jël dañoo jël suñu alal ak suñu jëmm jaay ko moomatuñ ko kon képp lépp lu ñuy wax ci Sëriñ Tuubaa rek dañ ca war a sant fépp foo xam ne itam ña nga gàkkat deru Sëriñ Tuubaa foofa suñ bakkan koo fekke ndax bu dul loolu amatuñ benn njëriñ kon loolu dafa mat a leeral ndax li li jiitu nag laa tasubbu lasina yad'una min duunillahi fa yasubbullaha adwan bi nga xam ne ba fa tudd suñ kon danañ ko ngaañ foofu bu ko fa tudd ndax boobaa luñ ko wax rek yaa ko fa rek yaa ko teg kon ci umpale suñ ba xamul dara ci moom itam am na ci wax yoo xam ne boo ko dee wax jërëjëf jëm ndax du dugg ci seen biir xol kon lay itam mat nay bàyyi xel bu baax Sëriñ Tuubaa li mu wàtte woon dafa nañ abdullahi moom rasulihi la nag mooy ko nangu jaamu suñu borom xadimu rasulillahi rasulihi mooy ki koy liggéeyal kiy liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam kon kooku mbiram leer nañ te loolu itam leeral na ne suñu borom moo ko sàkku ci moom raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu wa abdullahi suñu borom ci bopp moo sàkku ci rasulullahi moo sàkku suñu borom nekk abdullahi wa xadimu rasulihi kon képp koo xam ne yëkkati kàddu di ko teg ci turu yoon ba ci tudd Sëriñ Tuubaa wala jëni jëf wala wax yoo xam ne benn taalib bu murid moo ko def nga bëgg ca laafaale murid yëpp yaa ngi tooñ la daa wax ne wolof de li tax seen biir doy waat kenn day di tooñ ñu tamu xeet kon bu fekkente ne foo gisee ab jullit def seen ci Amérique wala France wala fenn nga ne xool jullit ji niñ mel loolu njuumte la fii ci Sénégal ak fu bari ngay gis benn taal bi wax ji la wax te wax ja moom laaj ndax Sëriñ waxoon na nit ñi de jëkk ak yu ndax wax na dégg jëf na gis na jàng li bind leer na nga xam ne ñooy ak jabatu bopp mi itam nit ñi suñ seen ak dara ku xam ku ne xam na fa ne seen digg seen borom kon koo xam dara da laa naqari nga dégg benn saay bi boo dara nga jël ko bëgg caa laa faale wu lépp yàgg gu rëy gu ne wa taxsibuhu hayyinan wa huwa indallaahi aziimun kon loolu ñi ngi koy fàttaliwaat nit ñi te xam ne Sëñ Tuubaa dama waxoon leer nañ kon ba bala jeexal ma ki xam ne moo fi teewal président de la république di Aly Ngouille di ko sant bu baax di ko gërëm ndax moom xam naa ci moom seere ndax liggéey masal ñu naan ba ko sëriñ joxe ndigal fekkoon na boobu mu ne ci biir ko ba nga xam ne mooy yor wàllu bi moo ko jiitoon kon actuel jiitu na pale ñu ko yóbban nuyoo nag ci président de la république parce di gërëm ci ak taxawaay ci yoon mu ndax li tax mu di ko léeg-léeg sax nit président daara fi da koy defal bi waaye leen musu maa ci sant ko ci ne ko yaama defal ñoom sant ko lu jëm ci dëkk naa ne nag bu ma ko waxut xawma ko koy wax ndax suñ kilifa yu baaxee suñ kilifa yu baaxee tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Serigne Saliou ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine lu leen nit ma nit ma sa defal lu mu néew néew dañu la sant ba ñëpp dégg ko dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la mu daa wax lim ñu jëfal te waxu ko bu buñ dee ay gor ñoo ko war a wax kon nag jàpp naa nit ñi moom liñ bëgg a dégg rek lañ dégg li ñuy dégg loolu nag kenn du leen ci topp fi isa jaatahum fi isa jaatahum alxasanatu xaalu dana haasihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayaru bi Muusaa wa man huwa li am solo kon rek mooy lépp looy wax na ko natt ba mu wóor la ne lii yàlla rek a tax nga wax ko mu wóor la ne rek a tax nga wax ko mu wóor la ni itam ëllëgati si biir boo dajee ak Sëñ Tuubaa buñ xaree sa biir xol ndax yaakaar dafa diis te yoonu Sëñ Tuubaa bi kenn du ko fooyee kenn wóoru koo jël di ko jënde àdduna man baaxa nuuran biddu jaa fa sa yandamu yoonu Sëñ Tuubaa bi képp koo xam ne jënd nga ko jaay ko àdduna da ko rëccu kon loolu foofu lañ nekk waaye nit bu defee lu baax nga xam ko sëriñ bi doxale ma sama digg moom te yoon yi ma xam la mu ca daj bu ma ko séerewut xaw ma ko koy séere kon sëriñ bi nga koy sant defu ko gërëm di ko ñaanu suñu borom dimbali ko kàttanal ko ba yéen ji nga xam ne am na ko ci réew mi suñu borom may dimbali ko ba lépp mu àggale ko nu mu ko bëggee di ko jeexale tuuti nag ci wax sëriñ Touba ndax sëriñ Touba li ko suñ borom defal kenn mënu ci dara la borom kër gu tëdd gi daa wax maes ta fee jéem a defar ba defaraf waaye maes ta fee jéem a yàq ba yàqoo fi ndax moom dafa leeral biram dafa wax ne lawla alquran wa xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa bittu fi dunya laylatan wahida bu dul woon ak alquran ak liggéey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du fanaan ci àdduna génn guddi waxaatit ne law jiitu qabla nusuli qabla nusuli kitaab law jida fiihi waskur fi kitaabi fulaanan wala ma wala ma lam yakun zalika jaala ihtisaasu arsi li qalamihi badalan min zalika nee na bu ma dikkoon njëkk alxuraan di wàcc kon da gis lu bëree bëri ci alxuraan suñ ba di wax ne waskur di tudduur sëñ Tuubaa nee na ba nga xamee loolu amul nag ma dikk ginnaaw rasulullahi bokk ci ay xar baaxam suñ borom wattalee watteel ma ko saa su ma yëkkatee sama xalima arasa kursi jaayu kon nag loolu doy na sëkk xar baax yi nag man duma ko ragal lu ma ci gëm dama koy wax lu ma gis sëñ Tuubaa bind ko du ma am complexe ci ko fenn lépp loo xam ne nag gisuma Sëriñ Tuubaa bind ko wala wóoruma dama cee maandu waaye xar baaxi Sëriñ Tuubaa léeg-léeg ñu ne ma jataay bi ngay waxee ña fa nekk ñëpp du ñu taalibe ma ne leen ndax rañaanu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam di su ko wax ci ñu dul ay jullit kon loolu ay baate complexe la yoo xam ne dañ koy dugal suñu giir ngir bëgguñu ko weddee ba suñu ngëm woyof waaye nag ñun loolu kenn mënu koo am ñun ndax Sëriñ Tuubaa daa tabaxee yoon wi ci ngëm ak positif ba dara mënu koo dindi kon fi ma koy jeexale rek mooy li mu waxal boppam ne radia anni sibtuhul jilaani alayhi ridwaanu lasi alaani nee na Cheikh Abdou Xaadir Jilaani gërëm na ma radia anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu yu xalidul atan abul xasan achachali gërëm na ma radia anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mubidil jaani acheikh ahmadi tijaani gërëm na ma radiya an il xulafaa al arbaa husturida al muxarrabina al mutbaa mboolem al xulafaa al arbaa yëpp gërëm nañ ma man lam yakun radiya an naa fal karim radiya an ya ridan lay sa yarim képp koo xam ne gërëmoo ma itam ñu baax ñëpp gërëm nañ ma ñu ña ca kaw gërëm nañ ma waa aras gërëm nañ ma waa kursu yi gërëm nañ ma kon nag képp koo xam ne gisoo loolu du yàq dara ci mbaaxu Sëñ Tuubaa du wàññi dara ci yoon Sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala <coughs> kon bala ñoo jox sëriñ Mamor kàddu gi euh, ñu jottali rek ne bu masaan wax ba noppi alaaji daam Dramé